Hello YouTube. Morning. How you all doing? So I just woke up and I want to show you guys how you can whiten your teeth. And how you can also clean your face. When you wake up in the morning before you go into the shower. So I am going to go into the shower after I showed you guys. That's so yaa so lu may wax mooy dama leen di woon nu ngeen di raxasee seen gémmiñ gi ak nu ngeen di uh, raxasee seen parce que won naa leen dal uh, beneen yoon bi keroog nu ngeen di raxasee seen xarxanam bi ak bota ak sukur tey dama leen di woon nu ngeen koy raxasee ak uh, toothpaste ak baking soda ok baking soda mooy carbonate This is the baking soda I'm I put them in this empty pot. So you're going wash your face with and you're going also clean your face with it. And you're going use toothpaste. And you're going have a nice, and you can clean your lips with And you're going have a nice clean lips and nice clean face. So I'm going to you guys how my teeth are looking. This is my tooth coming from the bed. They don't look that bad because I normally use this whenever I notice that my tools are not white. I normally use it regularly like three, four times a week to be honest. But I don't do it for like a week so. lu may def nii dama ko dee def di uh, raxas suma kanam gi ak suma bëñ yi moo tax suma bëñ yi ñëwul bu baax so um, toothpaste bu xees lay use so um, toothbrush bu xees lay use pour ngeen gis so you're gonna put your toothpaste put your toothbrush on your toothpaste like this mm-hmm. and then you just dip it dip it into the baking soda you nga koy just def si baking si carbonate bi nga xam some carbonate moo tudd baking soda tur bi naa ko si bind mun ngeen koo jënd si supermarket bi wala online and you just brush su nga koy brosse lu dem ci benn minute walla ñaar su nga brosse lu dem ci benn minute wala ñaar you have to brosse it for at least one or two minutes okay and then you just leave it like that don't rinse bu ko layee ak ndox bàyyi ko noonu and then you put some toothpaste here and you put a little bit of water nga def si tuuti ndox nga def toothpaste bi def si tuuti ndox am then you put little bit of the baking soda nga def si li tuuti carbonate bi ak toothpaste bi and then you clean nga raxasee ko sa bi waaye nga ëytu bu dugg sa bët yi dafay lakk this be very careful you shouldn't open your eyes at this point I'm only doing this My eyes are gonna be crying soon. At this point, you shouldn't open your eyes. fu mu nekk nii war ko ubbi sa bët yi dara parce que dafay métti dafay lakk sa bët yi léegi and then I normally use this brush here this brush here I wet with some warm water then brosse bi dafa baax trop soo ko xamee boo si defee batterie sax dafay doxal boppam if you put battery there it's gonna go uh, moving itself going like but it doesn't have battery right now suma bos bi amul batterie I bought this brush from eBay. No, I bought this one from Shein. But you can buy from eBay or Amazon. I think it's on eBay. They're not that expensive. So when you're brushing around the eyes, you have to be very slow. Don't be too rough. suma brosse bi maa ngi ko jëndee uh, force bu ma njëkk a xam Amazon laa ko jëndee woon and then bii maa ko jëndee oh the eyes ngi lakk sama bët yi léegi mint bi <laughs> It's making my eyes watery now because of the mint on my face. It didn't go into my eye, but it's just the mint toothpaste bi. so normally su may def lii du may xool because yéen laay woon lii dama ko dee def su may bugg a normally I do it when I'm already in the shower and I'm about shower so after I do this I just on the shower you see and then I just rinse it. It's very good for cleaning your face you can do it once in a while. I got um the first one that I got, the first brush was from Amazon, but this one is from Shein. When I was ordering clothes, I just ordered it. was really cheap. I think it was like either three ninety nine or four ninety nine. So bii Shein laa ko jëndee seerut. It's less than five pound. but soo ko bëggee mën nga koo jënd eBay tamit seerut wala Amazon. te su la neexee nga use black soap. black soap soo ko use du du du lakk sa sa bët yi you know black soap bi naa lañ ko defal next time ngeen gis ko brosse bi dafa baax trop you can use black soap with the brosse for when you use black soap you don't have to worry that your eyes are gonna be hurting you know because the black soap is the black soap is not gonna hurt your eyes I my to body, you I have couple of body scrub that I have. Some I made, one I made for myself and the other two, one was from Primark. Is the, the tea body scrub from Primark. was very good. It's not very oily. So I like to then scrub my body this point and then I shower. You know, so I'm gonna do that now and I'm gonna shower. so right now su ma defee lii ba pare dafay fekk maa si pompe bi maa si wanag bi bu ko sangu waaye taxalaguma pompe bi damay def lii ba pare mm-hmm. su ma brossé bëñ yi su ma bëñ yi fii ba pare ma dem dugg si wan na taxaw si pompe bi euh, defar ma xar-xanam bi nii ak ma leen ko wan nii ba pare wala ma defar ko ak black soap bi waaye su may def black soap bi tam dama dee use lii ak black soap bi yenn yi lu si bëri and su ma paree ma scrub suma yaram wi yëpp ak body scrub bi you know yaram wi yëpp ba pare soo ko sangu léegi su ma pare naa leen ñëw su ma sangoo ba pare naa leen wan resort si ma ko raasee waaye dafa baax jigéen soo scrub sa yaram bi tam sa yaram bi dafay nooy te set ta rafet ba pare te sa karam gi soo koy look after ba pare ngay lekk lekk yu baax ngay naan ndox bu bëri ngay lekk ay lot of fruit and veg sa kanam gi dafay leer fresh you know and dafa baax sa yaram bi tam tamit you sa yaram bi dafay leer fresh but also dafa baax sa yaram bi so I was just saying it's good to eat healthy to eat lot of good vitamins and minerals food like lot of fruits and veg and it's good to drink lot of water and then you scrub your body and you look after your face you're gonna have nice beautiful skin as a woman or as a man if you want so yeah okay i'll come back when i finish the shower and show you guys the results and yeah see you soon look at this never mind the side this that is good <laughs> I know. It's crazy. Nanyingol ka clean minna pour I stay nice and clean. Nga will have in the video. I do because nga kelen